la ci jublu pour mën a wéyal nguuram ba de delà du deux parce que tudd na sax mois de mais juin def naa. Mhm. ci biir wax ji. Mhm. te avant moom Atepa tudd na weer yooyu parce que Atepa newoon na décembre moom dafa sori gars yi duñ ko nangu mais ay mais juin je crois que loolu dina mën a nekk. ah moom waaye le président dem bi mu waxee mais juin ba noppi daf cee teg euh, nañ bàyyi xel aussi ne euh, hivernage. Mhm. mën na ñëw. waaw loolu mooy nañu bàyyi xel ni mën nañ ko yokk ba mois de décembre parce que euh, voté nañ fi euh, en plein hivernage euh, Touba voté nañ fi muy taw ba ba abri yi xaaw xaaw dem et tout uh-huh, uh-huh. kon hivernage du du du lay uh-huh. am na sax ñu jël weeru koor gi comme lay te alors que weeru koor au contraire dafa war a yombal mbir mi parce que ci la nit ñi war a ëpp jot ci la gën a sawar gën a même même même xeex yu métti yi sax ay weeru koor la doon doon. Mm. ba ci ba ci ay Algérie fii rek Algérie jamono yu fii bi mu daan tàng jër dëgg dëgg dëgg ay weeru koor la doon doon ci la nit ñi di ëpp jot pour leneen. xare Badar voilà xare Badar yooyu yëpp ci weeru koor la doon doon. Mm-hmm. donc euh, koor du lay nawet du lay ba noppi on est maître du calendrier bu fekkee ni bëgg nañu organiser wax dëgg yàlla ay élections te conseil constitutionnel. Euh, euh, meilleur délai maanaam ci ni mu gën a gaawee daf ko tënk parce que nee na trente jours francs avant sa fin du mandat. Mhm. avant le deux donc minimum ak quarante cinq jours francs maximum avant la fin du mandat. Mhm. quarante cinq jours francs mooy quarante cinq jour yoo xam dañ dindi week yi ak jours fériés mhm. donc loolu am nañ ko parce que mois de mars duggaguñ ci te trente et un jours la. Euh, buñ ci boolee li des ci février bi. Euh, mën nañ ci dindi jour férié yëpp nañu am lu ëpp trente jours yu ñu dox yu dox suñu diggante ak premier avril mhm. donc léegi ak lu mu xat-xat bu xatee ba xat sax mën nañu bañ tënku ci ay dimanche parce que tënku ci ay dimanche mooy tax ñu am ay impossibilité matérielle mhm. parce que dañu aadawoo di voter dimanche mais en 98 organisé woon nañu fi ay élections locale yoo xam ne dañ ko saboté woon mhm. mais dañu reprendre scrutin bi le mercredi suivant kon tey jii pour des raisons de calendrier mën nañ fi teg ab dimanche jël jour ordinaire bu fekkee ni moo ñuy permettre ñu ñu am délai yi nga xam ne danañu mën a proclamer résultat provisoire ak définitif yi organiser deuxième tour kon matériellement ak ci wàllu temps ba léegi mën nañu organiser ay élections. Mmh. mais pour pour pour pour peu que président Macky Sall jël décret parce que décret bi ak waxtaan. jotewul dara moom mën na fixe datu élection mais terewu ko mu ubbi ay waxtaan ak ñi mu bëgg a waxtaanal mhm. parce que commencé na waxtaan de toute façon parce que yónnee na ci ay Ousmane Sonko am na ñu mu jot a recevoir mhm. Mamadou Lamine Diallo nee na recevoir nañ ko ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen mhm. kon loolu jotewul ak dara li mu war a def te warul wax sénégalais yi nii du moom moo am pour fixer date parce que loi électorale ak constitution daf ko ni moom moo am pour fixer parce que décret mooy fixer date kon décret mënu ko wékk ci waxtaan te ba mu bëggee aj élection yi wékk ko ci waxtaan waxtaanul ak kenn. kon loolu lay la rek parce que fi mu nekk nii moom am na euh, toute la latitude mu organiser élection yi à date échue mais li mu bëgg mooy dem au-delà de son mandat te loolu nag je crois que sénégalais yëpp duñ ko nangu. Mm-hmm. parce que quand euh, dafa jot ñu passer à autre chose liggéey réew mi. Mm-hmm. ñu fal njiit bu bees moom mandaam nee na jeex na la deux. avril lay jeex. Mhm. Euh, Sénégal yëpp xam nañu ne le 2 avril lay jeex kon lan lañ fi mën a teg euh, gannaaw le 2 avril. d'accord foofu laa bëgg a ñëwee ak yow. Euh, puisque le président de la République mu ngi continuer di insister sur le dialogue. Mhm. Euh, au-delà du 2 avril. Mhm. dafay le processus dañ koy recommencer ou pas qu'est-ce qui va se passer au-delà du avril. non le le le processus waruñu ko recommencer parce que. Mm -hmm. constitution bi dafa leer bu fekkee ni le 2 avril. amuñu président bu bees maanaam organiser wuñu élection mhm. conseil constitutionnel dafay constater la vacance du pouvoir day constater ni amuñu président mhm. bu ko constater nag constitution bi dafa ne en cas de vacance du pouvoir mhm. président assemblée nationale bi mooy falu donc conseil constitutionnel day installer Amadou Mame Diop comme président de la république sas ko ñetti weer pour mu organiser ci ay élection te élection yi ñuy organiser ci liste bi conseil constitutionnel dogal ba pare. Mm-hmm. lañ ko war a teg parce que ñooñu ñoo war a dem élection léegi coow li li yëpp nag mooy dañu bëgg a tegee liste boobu wet ba noppi recommencer à zéro. est-ce que bu boobaa dañu jalgati constitution. dinañ non seulement dinañu jalgati constitution bi mais dinañu jalgati ax ak yelleefu ay candidats parce que ñoom li ñu bëgg mooy dindi ba Bassirou Diomaye Faye ak Amadou Ba ci list yi. dugal Karim Wade ak ñeneen ñi nga xam ne ñoom bëgg nañ leen dugal ci biir liste yi ak Ousmane Sonko donc loolu moom mooy seen yéene. est-ce que yéene bi dindi amadu Ba la parce que bu fekkee ni ci conseil des euh, ministre bi nga xamante ne euh, moo précédé euh, ginnaaw bi mu abrogé décret bi nga xamante ne moo doon woo le corps électoral mu réitéré sa confiance ci Amadou Ba daal di koy fësal ci ñëpp ndax dindi ko ci liste yi la bëgg. ma réitéré confiance boobu. Euh, mm-hmm. wax la rek mais boo xoolee digganteem ak Amadou Ba. Mm-hmm. ak diggante Amadou Ba ak waa Benno Bokk Yaakaar ak waa APR ci boppam. Mm-hmm. moom il est contesté ñu ngi koy ŋàññ femmes yi ñoo ci mujj. ay euh, gis xam ngeen position euh, ay Thérèse Faye ay ay Mambay Niang ay Souleymane Jules Diop ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi ci wetam te waxuñu comme ay daaw Daouda Diallo ak ñu bëri. Euh, Cheikh Omar Anne sax ñu ngi koy jiiñ ay ay baaraamu tuuma ni moom moo doon monter nit ñi contre Amadou Ba. Mhm. li wóor mooy euh, euh, Macky Sall Amadou Ba du candidat en réalité te bu amee occasion reprendre processus électoral bi dina wut beneen candidat bu dul Amadou Ba te Amadou Ba xam na loolu moo tax moom élection la bëgg a dem. Mhm. Bassirou Diomaye tamit c'est leur grand problème parce que dafa rëcc. dugg ci processus bi. Mhm. te sondage yi ñu yor ñoom ci seen table wane na ni Pastef mooy gagné premier tour cinquante deux virgule trente quatre pour cent kon loolu ñoom xam nañu nguur gi dem na ci loxo opposition ba pare. Ah donc lépp dem na ci loxo Bassirou Diomaye ba pare. Mhm. parce que ay sondage yu ñu yor moo ko attesté te noonu la sondage yi wane ni Amadou Ba du am dara du dem sax deuxième tour Amadou Ba te yooyu yëpp mu ngi ci table président de la République. Mhm. te te sondage. euh, c'est scientifique parce que mathématique ci la statistique bokk donc euh, ay statistique la yoo xam ni souvent day nekk indicateur pour prise de décision mhm. kon yow xam nga ni nguur gi mu ngi ci loxo Bassirou Diomaye ba pare balaa ñuy voté léegi sa fexe yépp mooy mu bañ a tàbbi ci loxoom nga bëgg tëggaat leneen parce que ñoom xam nañu dañoo jiitu ci ay information mhm. nga bëgg a tëgg leneen pour récupérer nguur gi ci ay loxo mhm. pour mu tegu ci yeneen lox donc loolu la ñuy wax confiscation du pouvoir ak ay manœuvres yoo xam ne euh, bàyyiwuñu askan bi mu tànn. looloo tax démb mu évoqué l'article 36 comme pour nous expliquer que ni au-delà du 2. bu mm-hmm. fekkee ni jotuñu déggoo ci kaddu. pour mën a mm-hmm. organiser ay élections. Mm-hmm. maanaam moom day toog ba keroog muy jox leen ngay beneen président. waaw xam nga article 36. alinéa 2 bi. oui dafa ne le président en exercice reste en fonction jusqu'à l'installation de son Euh, loolu mooy yoon mais loolu dans la limite du mandat la parce que loolu jéggiwul 2 avril. Mhm. parce que élection yi avant 2 avril la. Mhm. mais bu ñu defee élection yi ñu gañe ko du dem ci saa si day toog ba ñu installer prédécesseur am. Mhm. loolu lañ ci jublu parce que am na lu jiitu alinéa bu ko jiitu boo xam ni dañ ko tëb donc loolu euh, boo ko xoolee. dafa nekk exactement ñoom la ñu doon lijjanti te sottiwul. ci proposition de loi bi parce que dañu apporté woon modification ci article 31 modification bi lan la wax exactement li ñu wax ci article 36 modification bi dañuy mhm. disposition dérogatoire bi lan la woon mhm. le président reste en fonction jusqu'à l'installation de son waaw léegi article bi lan la wax la même chose donc bu fekkoon ni loolu mënoon na ko permettre mu toog au-delà du deux kon du soxla ñoom ñuy modifier article 31 pour dugal ci la même disposition transitoire ba conseil constitutionnel rejeté ko. mais loolu tamit est parce que boo xoolee euh, euh, bu fekkee que ni mooy date bi ñu organiser élection yi date bi ñu koy gagné par exemple le 25 kon boog février moo doon jàpp ni Macky Sall gagné nañ ko donc est-ce que bi li mu évoqué mooy 25 février ba avril il va rester au pouvoir 25 février ba avril. est-ce loolu ki koy wuutu parce que bu ñu ko gagné woon premier tour 25 février ñu gagné ko premier tour mais day toog ba. deux ans pas mu dem quoi. amul non day day mmh. toog parce que mënuñu toog sans président. day toog ba këy wutu jël service. même ministre boo ko follee sax day toog ba ki koy remplacer ñoom mu def. passation de service parce que maag président de la république. effectivement parce que mënuñu bàyyi poste bi mu mu mu vacant. Mmh. disposition boobu la con le le le constitution prévoir. Mmh. mais comme xamee nañ ko noonu nag. ñu bëggoon a dugal benn disposition dérogatoire ci article 31 pour ni léegi même bu dul loolu